Lady Diomaye waaw xam nga souvent mooy li olof Njaay di faral di wax rek mu ngi naan euh, politique moom du biir day xëy rek wasin mhm. parce que quel soit aussi choix bi ñu porté ci coalition Diomaye président il y a beaucoup de gens qui n'attendaient pas a ce que euh, le parti démocratique sénégalais choisisse Bassirou Diomaye Faye ndax li fi jotoon xew yu bien structuré un parti également boo xamante ni yàgg nañ évoluer dans la stratégie politique donc un parti très rodé boo xamante ni man dama bu bës ba jotee ñoom li ñu war a def xam nañ ko te te dinañ ko def te boo xoolee même ci biir communiqué bi nga xamee ni que bind nañ ko di officialiser également seen ànd ak euh, la coalition Bassirou Diomaye fay évoqué nañ ci yu bëree bëri parce que du loolu kese moo gisee sax ñu ngi ciy évoqué ay démocratie ay liberté ay nangam ak nangam parce que euh, bëgg a ci li ñu doon évoqué ak yooyu mooy li ma wax ni le le PDS n'est pas un petit parti dafa am lu bëri loo xam daf ko xeex sur le plan de la démocratie ak yeneen ak yeneen entre autres keroog ñu ngi ko fi évoqué historique bi ba yegg si fi mu yegg si yegg si tey président Lamine wax na lu am solo tout récemment am na ay événements yoo xam assisté nañ ko ci conseil constitutionnel bi mu retiré Karim Wade ci li nga xamee ni que mooy liste élection présidentielle yi donc ñoom automatiquement dañu wax ni Amadou Ba moo corrompre ay juge donc accusé ko de corrupteur donc nag vraiment incohérent si démarche PDS ñu gis tey démarche PDS ñëw am beneen taxawaay bu nga xamante ni dafay jublu ci accompagner ki nga xam ni que mooy Amadou Ba bi nga xamante ni vraiment moom lañ ni moom moo euh, moom moo moom moo corrompre ay ñi nga xamante ni moom moo guerre moom boobu laa doon moom moo guerre ay juge loolu ce serait véritablement euh, incohérent ce serait également euh, de promouvoir li nga xam ni que mooy la mauvaise la mauvaise gouvernance donc daal kon loolu bi mu amee effectivement gis nañ communiqué bi ñoom nee nañ Bassirou Diomaye fay lañ lañu la ñu soutenir et puis ils ont donné des raisons des raisons mm-hmm. multiples et et et parce que tey euh, donte nag choix bi am na ay jiix jaaxa yu mu jur ci biir parce que mm-hmm. ci biir parti bi am na ñoo xamante ni pratiquement ñoom nee nañ Amadou Ba la soutenir. Mhm. ñii nee nañ Bassirou Diomaye Faye ñii nee nañ nangam nangam. ba ci am ñu dem sax ba soutenir ki nga xamante ne moo di Khalifa Sall aussi. am na ñenn ñu dem ci donc mën naa ni parti bi actuellement nii. Mhm. bari ay clans yoo xamante ni dégénéré na ko soo communiqué bi. Mhm. mais de toute façon le plus important mooy communiqué officiel bi nga xamante ni. ci parti bi la jóge kon mën nañ jàpp ni parti bi ndox bu fekkee nag comme ni ma ko wax lay comme wax naa ni le PDS a été toujours un parti très organisé et structuré dañu daan déglu Abdoulaye Wade lu mu wax loolu lañ doon désiré kon je pense que la volonté aujourd'hui du Parti démocratique sénégalais c'est de suivre la volonté du président de la République qui est d'ailleurs la volonté de du monsieur Karim Karim Wade mm-hmm. pour man bon c'est un choix bu ñu def stratégiquement également te boo xoolee aussi coalition tey di ëpp doole ci mouvance ñi xam ne ñu ngi ci opposition bi c'est la coalition Diomaye présidence te bu fekkee nag man jàpp naa ni. avec beaucoup de souteneurs. avec beaucoup de souteneurs avec beaucoup de souteneurs tey mooy coalition bi gën a bi gën a bi gën a taxaw tey jàpp naa ni bu fekkee ni renverser ñoom ñi nga xam ñu ngi si guddi gi yépp renverser tendance bi moo leen tax a jug je pense que aujourd'hui coalition bi gën a jege pour renverser renverser la tendance c'est la c'est la coalition Diomaye présidente donc kon choix bi man je pense que c'est un choix très légitime un choix également logique c'est la politique il a d'autres gens également qui parlent d'idéologie politique mais il ne faut pas oublier que les idéologies sont mortes parce que fii wax naa ko fi keroog depuis 2000 bi Abdoulaye Wade di falu boo xoolee boo xoolee euh, pratiquement gauche bi ñoo ko doole te Abdoulaye Wade il véritablement aujourd'hui on est dans une situation des alliances contre nature mais conjoncturel mm-hmm. maanaam alliance ay alliance contre nature lay doon mais day tenir en compte la conjoncture léegi nag pour man conjoncture bi moo leen boole contexte moo leen boole circonstance moo leen moo leen moo leen boole mhm. donc daal amoon mon humble avis je pense que c'est un choix euh, vraiment très légitime et très politique d'ailleurs d'accord ouais. euh, c'est euh, bu ñu ñëwaatee un peu ci ci ci ci euh, communiqué bi mais également ñu jàpp ne peut-être ndax mënul nekk rek euh, pour PDS garder li nga xamante ne moo di crédibilité moo tax ñu génnee communiqué bi pour mën a dem ci côté Euh, coalition Diomaye 2024. waaw moo tax peut-être. sëriñ mi ngi wax légitime politique je dirais politique. <laughs> Euh, politique bi moom mooy tax nga garder sa crédibilité boobu nga xam ne yow ci nga dugg. <laughs> Mhm. parce que le PDS et la coalition ou Diomaye président mooy ki ko incarné c'est le PASTEF parce que ñoom ñoo fa majorité amuñu même idéologie. Mhm. bokkuñu gis-gis. Mhm. amuñu même parcours politique bokkuñu également li nga xam ne moom mooy ay gëm-gëm xam nga l'autre jour bi ñuy bi ñuy bi ñuy analyser. candidat bu nekk kan nga war a soutenir man dama ne woon logique politique logique politique ñu ko suivre moom moo doon que le pd soutient un candidat libéral loolu mooy logique politique Bougane gi Dany mu soutenir un candidat de l'antisystème loolu mooy logique politique parce que ku ci nekk dafa am loo incarné boobu ak léegi bu ñu fàttee ne Abdoulaye Wade est le père du libéralisme au Sénégal maanaam moom moo ko incarné fii ci réew mi di Sénégal mhm. maintenant man dama doon xaar peut-être que bi ñuy analyser l'autre jour que am na tey aujourd'hui euh, loo xamante ne xëy na ñu bari teniruñ ci woon en compte c'est mhm. vrai que PDS pour mu soutenir Amadou Ba doon na doon lu difficile parce que ñoom ñoo njëkk a taxaw jiiñ Amadou Ba de corrupteur maintenant loolu moralement nan la ñu mën a taxawee ki ñu jiiñ ne moom dafa corrompre ay juge enquête bi mi ngi dem dara leeragu ci ñoom ñu ëlbatiku dem ànd ak moom dina indi jeexi jaaxa ci xelu nit ñi et même ñoom. Mhm. jàpp naa ne am nañu ko ci bëggoon mais comment peut-être convaincre les sénégalais que ne ñun ki ñu jiiñoon bërki démb ne moom moo ger ay juge kooku la ñu ñëw àndal tey moo lay wan ne dootuñu amati crédibilité boobu ngay wax. d'accord et nit ñi dootuñu leen gëmati. que ne accusation yi peut-être ay accusation la yoo xam ne dëgguwul woon parce que que ñu moom la ñu àndal tey mhm. par contre politique politique moo doon PDS tey bu fekkoon ne dañu ko teg rek ci politique et dañuy am ay dividende politique et que politique da ngay ki nga xamante ne moom nga méngool moom nga bokkal idéologie moom moo Idrissa Seck Amadou Ba Boun Abdallah Dionne wala sax Déthié Fall Mhm. parce que Déthié Fall sort de réew mi foofu c'est le libéral mhm. foofu noonu foofu ngay jàppee ne ñoom kat topp nañu logique politique parce que teg nañu fële les querelles yi nga xamante ne mooy antérieur yi nga xam ne moo leen jotale ak Amadou Ba mais indi nañu li nga xamante ne aujourd'hui moom la ñu jàpp ne moom mooy logique politique donc un moment dina la jaaxal di nga ne pourquoi aujourd'hui le choix sur Amadou Ba mhm. beneen bi moom mooy élection la ñu nekk maa ngi wax léegi ne da ngay sentir que dafay mel ne benn esprit revanchard ñu ñu baal ma peut-être ci kàddu bi. parce mhm. que euh, boo sant boo gisee ni ñu defee ci communiqué bi mooy ka ñu jiiñoon mënuñu ànd ak moom donc dañuy fayantoo. parce que aussi booy ànd souvent en politique nit ñi dañuy seet ñaari coalition yi nga xam ne ñoo nekk en tête boo seetloo ñoom ñoo ëpp ñu rallier ci ñoom. contrairement ak yeneen coalition yi même si am nañu mais ñële boo dee seet ñoom ñoo ëpp ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom parce que tout simplement dañuy seet ki nga xamante ne moom moo gën a am la possibilité gagner au premier tour wala sax ñaar ñi ñoom ñooy dem deuxième tour mhm. donc peut-être loolu moom moo tax ñoom ñu dem porter seen choix ci Diomaye tout en sachant que du ñu dem soutenir Amadou Ba parce que Amadou Ba li leen xañ ñu bokk élection li indi Sénégal ci situation bi li indi jafe-jafe yi c'est le PDS moom moo accusé je dis pas parce que accusation ne veut pas dire vérité euh, mais ñoom ñoo dem accuser le PDS de corrupteur le 3 février le président taxaw def une déclaration toxal li nga xam ne mooy la campagne électorale qui devait démarrer le 3 février à minuit ñu dem ci ay dialogue demaat ci ay décision conseil constitutionnel ba mujjee ci cour suprême bi nga xam ne dafa rejeter recours bi nga xam ne le collectif des spoliés dugal nañu ko muy liberté ak ñooñu xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ci bokkoon donc